c'est d'abord une initiative qui veut repositionner euh, l'Afrique dans production d'un savoir autonome, d'un savoir souverain. Donc il est, euh, très important pour nous, à de tous les autres rapports qui sont sur l'Afrique, d'avoir rapport par l'Afrique et pour l'Afrique. Et ce rapport-ci euh, a été élaboré sous le prisme de la souveraineté. que signifie la souveraineté pour les Africains dans un contexte international où euh, l'hégémonie des pays du Nord est, écrasante par rapport aux pays du Sud en général, aux africains en particulier. Et il nous paraît très important d'analyser euh, l'Afrique sous le prisme de cette souveraineté. Souveraineté économique, souveraineté monétaire, souveraineté culturelle, mais sur souveraineté politique, notamment dans une démarche euh, où on considère, on souligne que l'Afrique ne peut être souveraine que est unie, que si on met en avant le panafricanisme. C'est cela le sens de ce, de ce rapport, qui veut se positionner comme tous les autres rapports qui sortent, qui déterminent les politiques qui sont élaborées par nos différents pays et qui euh, donnent des orientations et des indications sur les vraies priorités des Africains dans le sens de leur souveraineté de leur autonomie. Le rapport veut également euh, les pays africains en général du continent également, euh, d'indicateurs nouveaux, différents de ce qu'on a élaboré au niveau international, le produit intérieur euh, pour mieux mesurer ce qui est important pour les Africains ce qui ce qu'on ne compte pas ailleurs, mais qui, important pour nous. Donc, le rapport veut positionner sur des questions de ce type et donc cherche à véritablement influencer les euh, politiques euh, au niveau national, au niveau continental. C'est cela le sens de ce rapport numéro 1. que, que ce que les populations africaines d'abord se l'approprient. S'approprient les idées que nous avons développées dans ce rapport et que les décideurs également puissent s'en inspirer pour des basculements et des ruptures euh, euh, fondamentales dans l'élaboration de nos politiques, euh, mais également pour prendre qui a été d'abord un révélateur des insuffisances que nos pays vivent en termes de souveraineté, mais qui doit être une opportunité pour que nous puissions reconstruire euh, une vision africaine propre et qui nous permet également d'élaborer euh, de manière décomplexée des projets, des programmes qui sont plus conformes aux intérêts des perspectives Après le lancement de, de manière concrète, nous allons euh, le vulgariser. Donc faire en sorte que partout en Afrique, auprès des jeunes, au niveau des réseaux sociaux, au niveau des institutions continentales, des institutions nationales, des institutions régionales, que tout le monde s'approprie les idées que nous avons développées et que les propositions et recommandations que nous avons faites soient euh, appropriées par les décideurs de nos pays. ça l'objectif qu'on se donne de cet instant euh, pour les semaines et les mois à venir. Pouvez-vous sur nos systèmes de reproduction je, je vais laisser cette question à monsieur Chérif Salim. wolof wolof wolof. dañ leen di gërëm a baax rapport bi ko indi euh, doonul Afrique dañu bon waaw loolu lañ ko ay techniciens comme ñun ñoo koy def. léeg-léeg ñu bare ci ñoom ñoo moom fuuf domaine yi ñu nekk mais rapport bi ñun la ñu jàpp ni doyul te la mu war a gën a wane teg ko ci loxo population africaine bi doyul dafa mel na ay rapport yoo xamante ni li leen ci intéressé mooy lañu bëgg kilifa yi ñëpp a def gis loolu loolu tax ñu jóg loolu tax mu nekk rapport alternatif waaw beneen la beneen la mais beneen bi dañu gën a wéral lañ ci bëgg moo mu nekk rapport am njëriñ population africaine bu bi nag dañu ko jaglee koo xam ne kii africain la égyptien la mais terewul suñu réew la tàmmoon depuis 1963 ñëw nekk fi ba daal mën nañu wax daanaka fi la dexe ndax fii la daanoo yoon ko yóbbu yàlla dogal moom moo gaañu fale moom xeexam yëpp waroon souveraineté depuis mu génn université waaye ci yooyu rek lañu liggéey ñun itam am na ñoo xam ne sax xamuñu ko woon jamono yooyu yàlla def ni Afrique daf leen ñor ba nga xamante ni ci domaine yooyu la ñuy liggéey ñu nekk Sénégal ak ñu ci continent bi ak yeneen experts yeneen réew ba ñu daje suñu xalaat yu méngóoloo ñu ni daal kon ñun comme ñoo bokk gis-gis rapport yi am doyul nañu daje def rapport boo xamante ni euh, réew yëpp ci bopp ndax loolu jar nañu préciser gis bopp c'est-à-dire pour affaire sénégalais entre eux-mêmes réew yëpp c'est important suñuy réunion de préparation ay comité yi am yëpp nit ñi dañu jóge ci réew yu nekk ci Afrique tey nag problème bu la déjà li am ci Paris ci financement bi wane na ni euh, euh, euh, africains yi seen xol métteeti ndax dañu jàpp ni ñu ngi dogalati pour Afrique duñ ko defee ci Afrique ñeneen ñooy woote ñeneen ñooy def waxtaan bi foofu nag dafay wane ni eh, eh, eh, ñu ngi ci yoon bu baax day na ñun ndax dañu bëgg li nga xamante ni moo di suñu mbir ñun ñu takk fii seet nu ñu koy waxtaanee ku ñu bëgg booleel la si ñun ñu boole la suñu waxtaan et nangu it suñu néew doole par rapport situation bi am néew doole bi France teguñu ko teguñu ko ñun ñii ñoo liggéeyul nañu war a liggéey ndax àddina bi bari ñu réew yu colonisé woon dañu xàll yeneen yoon sañ ko am fit def nañu bëgg tey jii jiitu nañu lu bëree bëree bëri bëri donc loolu moo tax rapport bi am souveraineté nag moo di sañal sa bopp si wàllu mbay sañal sa bopp si wàllu entreprise ak industrie bax jàngukaay ak jàngiin woo xamante ni pour faj say soxla la ci sa biir réew génn ci foxtu boo amee ay machines yu mag yu am jafe-jafe mu di ci ndox mu di ci électricité bi ñu yebal ay hélicoptère docteur yu jóge Paris ñëw wala yu jóge Washington ñëw pour defaral la ko yooyu yëpp la ñu bëgg génn si am système bancaire boo xamante ni day suñuy banque du nekk rek ay bureau banque yoo xamante ni dañuy am doole nekk ci àddina bi surtout continuer réflexion suñu taxawaay du contre unité africaine dañ ko xam bu baax du contre unité CEDEAO mais li ñuy def moo di suñu métier suñu réew formé ñu si ñu di si liggéey donc ñoom ñoo jëkk nangu ni jagleel nañu esprit critique lu ñu gis ni dara suñu xel nañu ko wax donc donte que ñoom ñu ngi continuer pour liggéey pour unité bi jaarale ko ci franc CFA bi du ñu tere par exemple fu mel ne Afrique de l'Ouest du ñu tere ñun ñu wax ci li ñu xalaat tënku ci li ñu jote gis ci adduna bi yépp waaw loolu daal moo di moo di moo di moo di waxtaan bi waaw mbas bi c'est que ñun ñuy travailler pour une alternative dañuy wax ni léeg-léeg jàngoro lay am nañu kenn foofu ko suñu bind yépp bu ngeen ci dem ñun prévoiroon nañu lii am dina am parce que lii ñu ñuy bëgg fajal yépp Afrique avec euh, euh, euh, maanaam jàppale bi am à l'extérieur PTPE programme bi nga xamante ni mooy dimbali réew ñu néew doole yi pour désendetter leen jaar foofu mais gis nañu ni depuis 2006 suñu réew yi ñu ngi endetté wu waat am na ñoo xam ne seen dafa multiplier par loolu loolu jàngat quand même bu bu bu doy waar la nga xamante ni war nañ ci tirer leçon donc jéemuñu euh, euh, yàq dara ñu travaillé ñu ni tam pour l'unité de l'Afrique Afrique bu booloo ci sous-région yi muy ci continent waaye li daaloon xel daal danañ ko di ko teg ci bi parce que amul fenn foo xamante ni waree na fa ci àddina bi njëriñ bañ ko yaakaar bu fekk ñu doxale ko loolu yooyu yëpp kon ça ñun nous sommes ouverts dañu ubbeeku suñu rapport des gens gën a kawe ci par exemple ci réew bi ñu nekk ci gouvernement bi ñu bokk ci rapport bi ñu bokk di xalaat loolu nag lu jar saluer la lu jar saluer la ñu ko continuer di ko def rek